kuréel gi lëkkale communicateur traditionnel yi nekk fii ci diwaan bu tedd bi di Touba ñoom kat tey ji amal nañ jëf ju am solo ci waajtaayu màggalu Touba 2017. tey ji doon nan joxe li nga xam ne ni moo di ay ndimbal toll ci ay toni ceeb yu bëri ci ñi nga xam ne ni dañoo dëkk ca sancaan ya fii ci Touba ci jamono ji nga xam ne ni ñu ngi waajal màggal gi képp koo xam ne yaa ngi dëkk Touba sa xel nekk ci bernde ak seentu gan loolu nag tax na. ñi nga xam ne ni ñoo di kuréel gi lëkkale mboolem communicateur traditionnel yi ànd ñoom ñëpp dem ca sancaan ya ci ñi nga xam ne nii donte ñëpp ñoo soxla jamono yi ay ndimbal waaye rawatina ñoom yóbbul leen ay saakoy ceeb ànd ak mboolem presse bi nga xam ne nii nekk nañ Touba mu nekk jëf joo xamante ni nag lan mooy jublu bi ñu déglu kii seen njiit di Modou Mbaye Ndiaye. waaw li ñu indi fii ci Sam mooy ndimbal rek mooy euh, waajal màggalu Serigne Touba gi. ñu gis ni taalibe yi nga xam ne ñoo dëkkee fii ci bu Boukhatoul Moubaraka fii ñu nekk quartier sëñ Cheikh Lo Ngabou lañ koy dàkkantalee mu nekk ci fond bi ñu ñëw fi ngir jàppale leen ci waajtaayu màggal gi ndax bis bi nu mal muy màggalu Serigne tubaa gi taalibe sëriñ tubaa yi yëpp dañoo fas yéene màggal si ci ñu nekk ci dëkk bi ñoo leen di dalal ñu gis ne nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci quartier préféré yi ñu xam ne am nañu jafe-jafe ci wàllu seen wàllu moo tax nañu ñëw li nu am ci acte social muy ab ceeb ñu indil leen ko moo tax itam comme ñun ay communicateur la nekk ay porteur de voix bu ñu waxee ak euh, kilifa yi ñu mën ñu dégg ñu demoon ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi muy kilifa administration bi ak kilifa yi nga xam ni ñooy kilifa diine yi waxtaan ci ak ñoom euh, biñ leen ko waxee itam ñu rafetlu acte bi ku ci mel ni la maire Abdou Ka euh, defal nu benn acte social muy dimbali ci wàllu ceeb bi nii muy deux tonnes donc yeneen kilifa yi nga xam ne dañ fi nekk itam euh, dugal ci seen loxo Maxtaar Jenn am na ndox moo xam ne incha allah euh, dafa xaw a tardé ci axe bi mais dañ koy indi ak euh, ci mel ni ñoom préfet def ñu ay moyens de déplacement honorable député Abdoulaye Seck Sadaga def ci ay moyen ci wàllu oto ak carburant ak euh, ku ci mel ni Ami Cheikh Yabou Diop moom tamit def dépense su añ bi ñu war a loo ak yeneen kilifa yoo xam ñi ngi ci dëkk dañ cee dugal seen loxo donc daal li ñu fi indi daal mooy jàppale askan wi dëkke fii ci Touba comme ñun dañuy ay géwel te war di wax lu baax li ñuy wax nag ci lu baax mooy jot li message su ñi nga xam ne dañoo dëkk ci dëkku sëñ Touba bi te seeni moyen taxul mu demee noonu. ñu jublu ci ngir rek euh, ñu xam ne ki nga xam ne dafa war a jottali nit ki kàddoom donc su ko jottalee war na koo yëg liñ ci jublu mooy ñu gën a xam ne Touba dëkk la boo xam ne tamit bi ko borom dëkk bi sañc ngir jaamu yàlla moo taxoon ak yërmande yërmande boobu lañ ci jublu. Euh, dañ ko bokk nag suñuy bokk ñuy ay kilifa ne ci ay góor nekk ci ak jigéen ne ci ñu waxtaan ñu ne léegi dañu bëgg bu ñuy def ndimbal li ñu xalaat fan lañ koy defee mais ñoom ñëpp ñu maase ni saam gox la boo xam ne Serigne Saliou moo ko sancoon bi koy sanc itam dafa. daf ko jaraloon muy taal otaam di fi ñëwal boppam muy fanweeri quartier ak juróom-ñett kon ñi fi dëkk bi ñu wootee ni Touba ku fi am sa kër sa pujum néeg mooy sa seere ëllëg yowmal am Serigne Saliou di joxe pàkk yi fii la lotissé woon joxe ko amoon fi yéene trop yéene jooju Serigne Saliou amoon ko fi loolu lañ ci jublu ba tax nuy ñëw di ci dugal suñu yéene. ñi nga xam ne nii ndimbal yi dafa bàyyeekoo ci kuréelu communicateur traditionnel yi ñëw ci ñoom di ñi nga xam ne ñoo dëkk fële ca sancaan ya donte luñ sori sori itam ñu ngi séntu ay gan mbir mi kat doon na mbégte ci ñoom lool ba tax ñuy fësal seeni cant ci anam gu nekk. ñu ngi ci liggéey solo de. waaw alhamdulilah. yàlla sama borom taxaw. amiin barke Sëñ Fallou. amiin amiin waaw jërëjëf. xanaa sant rek doole sant Sëñ Touba doole sant Sëñ Touba Mbacke mu ñu fi ñu te yàlla tax yàlla sant gi yàgg yàlla ngeen ko yàlla ngeen ko yàgg mën. barke sëñ ko wàññi waaw dana ko wàññi bu baax a baax kay ah xanaa jënd rek ceeb bi ginnaaw màggal ren gi moom gën jënd ko yàlla nañu ko yàlla gën a loo rek jafe ah wàllum courant ji la ndox mi moom jege na tuuti wàllum courant ji la ak wàllum ndox ak dund bii nii tamit tam ittoo woon nañ ko lool am na am marché wala lu mel noonu. marché bi xaw sori waaye nag am na ay dem waaye waaye yoon bi itam soxla nga yitte woon nañ ko trop tam parce que da ngay am ay jafe-jafe pour wàllum yoon. dëgg dëgg dëgg ndax bëri bu fajukaay am na. déedéet daf ñoo xaw sori loolu tamit yitte woon nañ ko trop yoon wàllum ndox wàllum courant bi buñ ci jàppale laa ñu jël ak wàllu dund bi. ceeb bi dina leen yombalal màggal gan yi ngeen di am ak pour bi. waaw ko yombalal trop sax. lan dina leen ah dana wàññi dana wàññi dépense bi ndax da boo waroon jënd ceeb doo jënd ceeb waaw. gën ko trop sax yàlla ngeen ko yàgg man at bu nekk. mu nekk loo xam ne nii nag communicateur traditionnel yi nga xam ne nii dañoo nekk fii ci tubaa te ñu gën leen a miin ci ñuy àddu ci rajo yi ak yeneen xew-xew yoo xamante ni lépp dafa ñeen liggéeyal Serigne tubaa seen jëfkër kër du yem dong. ci màggal gi waaye dañoo fas yéene seeni seen i ndimbal rawatina nag ci ñi nga xam ne ni ñoo ko woo jamono ji nga xamante ne nii dëkk bu tedd bi saa su nekk mu ngi yokku rawatina fi nga xamante ni nii moo di sancaane